93 point 5 Ngaye FM comme ni mu leen ko waxee euh, dañuy dalal El mu euh, présenté wu euh, ñi nga xam ne instant bi ñu ngi koy ñu ngi koy déglu El Hadj waaw maa ngi nuyu équipe Ngaye FM 93 point 5 bi yëpp. Hmm. di nuyu gaa yi ma fekk. Hmm. di nuyu aussi sama waa dëkk. Hmm. man Bardial laa dëkk. Thiès laa nekk actuellement. maa ngi leen nuyu ñoom tamit fi ma bàyyi ko aussi. xam naa ñu ngi koy jaar si internet maa ngi leen nuyu. di nuyu gaa yëpp quoi di nuyu Baye Kër ma Masamba. aussi maa ngi nuyu waa Ndombala Batal. bàyyi ma kenn ku lim da ngay juum di nuyu waa Mbaaleen aussi. di bëgg gaa yëpp. di saawa daal sama gars yi noonu la demee. ok mais comme par exemple tamit la moo waral euh, sa euh, teewaay ci couleur urbaine nan nga euh, def ba xam bon ah, ba xam da benn relation ba xam la moo la indi si émission bi. waaw émission bi li ma fi indi mooy Idji laa diglu maa ngi koy nuyu bu baax. nga dalaloon ko fii aussi ma déglu affaire bi nice quoi moom sama gaañ la mu nii dinaa la yóbbu foofu aussi ñuy waxtaan après si lañ déggante man ak yow mu jox ma sa contact loolu moo waral teewaay fii quoi aussi di ko béggee lu bari ok léegi mën nañu wax que ni euh, comme Elzo Elzo comme par exemple boo doon wax euh, Elzo ak euh, rab sa jaar jaar ak tamit sa amour hip hop nan la la dikkalee ba Elzo ñëw mu ne day dugg ci hip hop bi nan la fa nan la fa demee Elzo ak euh, hip hop amuuram maanaam comme par exemple ba xam da dafa am da nga am benn référence wala lan daal kam moo la euh, kii ba nga dugg ci rab bi. waaye bala loolu maa ngi nuyu sama technicien Adja. Hmm. donc waaw man nag hip hop li ma si dugal mooy. Hmm. man benn concours si laa génne. Hmm. aussi yàgg naa bëgg hip hop boobu maa ngi woon buur foofu lañ doon dooree benn concours hip hop Galsen. aussi concours boobu nag. man maa jëloon final bi quoi finalu concours la woon léegi man maa gagné woon final bi. Hmm. aussi final boobu ki ñu ko tuddee woon Elso Jam Donga lañ ko tuddee woon. Hmm. mu naa ni gars yëpp xam nañ ko. léegi bi mu ñëwee ma rab après ma rab bi ma doon rab bi ma rabee ba pare ba concours bi jeex après som laa doon woyaat. Hmm. mu ñëw yéeg ci kaw seen bi yëkkat sama loxo. boobu man birigata laa tuddoon sax nooy après moom moo jël suma tur. ñoo maa la tuddee Elso 2 yób ma ba gàlleem après ñu ferek mu jox ma xaalis bu bëri. son yi ma dóor si laa ko dóoree moom may def. mais euh, ñaata million la la jox parce que da xaalis bu bëri la la jox de. <laughs> non pas million sax mais jox na ma xaalis waa jox na ma xaalis moom moom may départ aussi. Mm. son yi ma dóoroon sax isi joom laa ko dóore woon mooy loolu noonu yenn yi am na yoo xam isi joom laa ko dóore woon. Mm. mu yóbbu ma ba gàlleem ñu ferek après toog waxtaan mu wax ko li ma may parce que man boobu man maa ngi doon def soudeur métallique laa doon def liggéey. Mm. mais hip hop bi man boobu hip hop laa gënoon mais ba léegi yaa ngi daw liggéey wala gën nga fonk sa liggéey wala lan wala ba xam rab bi la moom nan la fa demee. non maa ngi si liggéey bi actuellement mais maa ngi si rab bi aussi tamit. Mm. damay job FD damay job daal. Mm. maa ngi si lépp aussi mm. chaque jour maa ngi si rep son yi. di job quoi. ok léegi euh, comme par exemple instant bi yaa ngi live en direct yaa ngi live en direct euh, sa son sa son yi comme par exemple ni dama bëggoon. nga jël comme par exemple sa taxi sa taxi nga jël benn kii bu nga xam da nga koy euh, yaatal yaatal au li au lieu may teg sound bi mais yow live on direct da nga koy jox nit ñi après ñu xool technique beeg yooyu après ñu décoré ko comme benn nga tàllal ko carrément benn sound bu nga xam ni peut-être thématique la am na solo ci askan bi nga nga tàllal ko ñu dégg. ah mu dee ba. yeah. yeah ok yeah LCO ngay am bandi amul muñ saw xeng bari bakar suba yang ci bar gaddu butel di mandi ah ñaka tax ma ñankir def agar soton bandi dugu bar gaddu butel rek dal di mandi nga la yalla ci bop koñ bi yotu ban bi nga la yalla ci bop koñ bi buñ xeye dañuy tek seen caayen ataya après guddi bi ñu dem dugu ci bar yi affaire yoy non mm. def ay agression quoi lu mm. met ci koñ bi après lool mo waral ma jël sool ma job ko quoi hmm. ah ok kon da nga gis que ni comme euh, par exemple yenn toogaa yi ak euh, yenn jotaay yi amul solo loolu daal fi nga fa bëgg li nga bëgg wax foofu mooy comme par exemple euh, jeunes yi dañ war di daan seen doole wala wala ñu bàyyi facilité wala daal exact oui oui parce que da ngay gis koo xam ni tey même foofu ma lay wax noonu am na benn booy bu fa jamoon rakam hmm. aussi xamu ko quoi hmm. mooy li ma lay wax suba yaa ngi si baar gàddu butéel daal di mandi affaire yooyu noonu parce que bi mu koy def mun na nekk dafa mandi woon wala dafa tàggoo ak sagom aussi xamu ko quoi si thème boobu laa pour ma job son bi non la demee quoi. Hmm. ok léegi comme par exemple bu ñu doon wax euh, manam Elzo ak répertoire manam instant bi ñaata sound ñaata sound nga am sa répertoire. waaw sound moom instant bi li mo dóoragul instant war toll na ci ay douze sound quoi. Hmm. ok léegi xam nga sànq dama la live en direct. Hmm. nga dóor sound ba si yàgg nga tag léegi dama bëgg sa répertoire benn sound boo maîtriser carrément nga jox ko ñi nga xam ne instant bi ñu ngi déglu couleur urbaine benn sound bu nga xam ne maîtriser nga ko carrément. Uh-huh. nga jox ko ñu lay déglu. yee na tëll ngeer pees seen jël boroom xel mu sell rab ba nangu sa gell teg si béggal la mbelmel ngeen dëkkee rabu leen da ngeen di gumbe seen période moo périmé mbedd mee ko jooy booy tàmmati naay jooy saagante ay nday boo bëggee bës da koy liggéey elso fi mu deef rab mënu ma bokk ak yéen ndab doon king is back sama yoon dama ko fight bëccëg mbaa naaj nekk ci site bi jàppanteeg mbind mi fësal xam-xam bi sol si bopp xam yi tàngoo ñaangoo doo ñaangoor te doo màtte bu ma nee tëll melomaan daal di la fàtte ndax giroo dafa tardé rab di saagante nday moo waral ngeen tardé ñëw leen sama groupe ma daal di leen waarde li ngeen teg dafa salte ndeke na du ma la baalde dinaa dóor kurfañ nga daal di jaalde rab bi da ngeen ma fi saf ma yaasi nag ñoom jaalde rab bu dëgër taay si nga si yow de yëg si nga Elzo moo fi teew MC yow de lajji nga ni nga dem sen MC yow de jag nga aha saw pendal ngay sen man damay rap da dakara fiti sen tay ma dog seni gen ma ngi rab ngay sani xer du tax ma déclarer guerre sino ma def la mer yow fi yow maay sa père déema sen tuni wer rap gal sen maay sen père sam rap day fëtt falanceer dem ba angleterre man ak yeen du guerre sopi len disquette solal len marinière ma fi xaram ngeen di mer ba la yam daf guerre mes taxu ngeen ja ay mes concert buma yek wacc ni merci ma ngi rap ngay diingat nan boy bi amul gat sa pap foo ko fekk samay son lay get et eh, ah. ok dafa leer noonu lay demee Elzo nga am foofu noonu euh, euh, euh, xës. li nga jot a dégg saa waay mën na rap wala mënul rap. <laughs> non ay na ok noonu lay demee mais comme par exemple yéen nan ngeen gisee. évolution rap bi comme par exemple fi mu toll nii fi mu toll nii comme yéen ay jeune talent ngeen nan ngeen gisee évolution rap bi parce que xës moom nee na euh, classique lay def yow style bi ngay def bon peut-être mën nañu wax que ni yaa ngi ci euh, loo boobu bon euh, après bon mën ngeen njëkkante ah ku si nekk mu këf maag bi comme bon yéen ko moom mais ku mu neex na njëkk a këf maag mu kii. comme ni ngeen gisee évolution rap bi yéen instant bi classique ngeen def ak tamit rap fi mu toll nii. aja waaw waaw rap bi moom fi mu toll yéeme na trop quoi mm. parce que rap moom xaaruñu ko ci woon ay saaganteeg affaire yooyu quoi mm. te boo dee xool daanaka ma naan la ñi jiite bagage bi ñoo ñoo tàmbali di def affaire yoo xam ne naka sudd noonu quoi mm. mais nag ñun moom amuñu duñ duñ roy nooñu duñ roy ñooñu quoi ñu ngi ci yoon bi nga xam si ni buñ ko jëlee daal dinañ mën a dem quoi c'est ça ok mais yow comme da nga gis que ne instant bi gars yi style bi ñuy def nii comme euh, classe bi ñuy def classe bi ñuy def da nga gis que ni euh, du dul normal Eh, yow da nga jàpp que ni eh, du lu normal loolu du royukaay wala da ngay jàpp daas real hip hop ok dafa bokk si hip hop bi ci la ci la hmm. classe hip hop la quoi hmm. parce que bi ñuy wax hip hop classe ci la hmm. mënu ñu ko cee génne quoi mais nay tegg rek nay tegg yoon ko euh, Elzo oui comme ni ko waxee rek comme ni ko xës waxee man classe nekk na loo xam man li ma koy def musuma ko def sax sama son musuma def classe donc ay éco trip laay def ay sanri son yooyu noonu quoi bégal sama gaay mais classe man dama xool nii comme ni mu ko waxee dama xool man tey soo xoolee ay ñoom dib ay ñoom gaaga tey nga jéem leen toppandoo yaakaar mais eh, sànq sànq sànq si biir maa ngi dégg nga naan xawma ay marinier rek ay kéeg affaire deme noonu loolu est du classe li nga doon wax sànq noonu côté côté boobu noonu sànq li nga dóor fii amul classe si biir non non nekkul classe c'est hmm. dama wax dama wax comme ça il soo na tël nga pees seen jël borom xel mu sell rab ba nangu sa gel hmm. teg si béggal la ngeen dëkkee rabu leen da ngeen di hmm. wax naa foofu Mm-hmm. seen période moo primé mbedd mee ko jooy mm-hmm. man dama gis comme classe comme classe comme ni ko gars yi defee tëb saaga saaga man nekkuma si yooyu quoi mm-hmm. tey man su ma la waxee dëgg lii sama bëgg-bëgg si rab dama ñëw pour def carrière comme xool ay ñoom gaston ay ñoom pakoti man tey su ma doon visé foofu laay visé quoi mais nekkul nii comme gars yi nii nii man dama ñëw pour def carrière pour ëlëk boo fi jógee ñu ne kii moo def lii kii moo defoon lii foofu laa gën a visé ok kon léegi yéen da ngeen gis que ni rab bi thème la ça veut dire que euh, thématique comme par exemple euh, li iji di dund

waaw kon moom boo doon man moom jàpp naa ne ki taxaw fii ci àll bi di sànni ay pikkam mm. mën na ñàkk quoi mm. parce que li ñu fi war a wax dafa bari ñu mm. war koo wax waxuñu ko c'est ça loolu la ñoo war a wax ok mais mais tamit loolu nga yaakaar lan moo ko waral lan moo ko waral est-ce que tamit bi ñoo dem ba benn instant ñu imposer loolu ñu imposer loolu artistes yi tamit euh, est-ce que tamit est-ce que du public bi walla tamit est-ce que du tamit benn instant tamit rappeurs yi dañoo dem ba xool que ni euh, woy ay thème doonu lu nga xam ne da leen yóbbu kanam Euh, ñu changer style euh, peut-être tamit xaw a xaw a xaw dem ci yeneen euh, style yi comme par exemple wooy bëggee wooy sa live moom texte bi da nga koy jël nga xool xool ko à la finish du am amul dara lu nga xam ni dina yeete est-ce que tamit du comme par exemple dañuy def rap business wala comme ni nga koy waxee rek affaire deme noonu musique moo demee noonu wala wala wala lan wala boog ñi engagé ñi ngi engage ba léegi wala na la fa demee. waaw waaw ñi engagé ñi ngi di def vrai rab bi quoi. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ñu ngi def li leen neex quoi. Mm-hmm. mais après ñooñ dañ leen seetaan rek ba xam suba nu muy demee quoi. Mm-hmm. c'est ça. fii moom man dama gis comme ku nekk rek nit bu nekk li nga bay ngay am quoi. tey soo ñëwee ni gëm ni rab bi su ma rabee nii mën na maa dem fii. ñun ñëpp suñu mànkoo woon tey ni suñu rabee tem maanaam suñu xoolee di rab actualité rek. rab bi dina avancé ñun dañuy gis loolu mais suñ xoolee ni classante tamit moo koy yóbbu da ngay gis loolu man tey soo ñëwoon classe ma man du ma la faale am na ñoo xam bu ñu ma classé du leen toon parce que bu njëkk bu njëkk da nga daan xool que ni rappeurs yi ak euh, métier journalisme benn la woon parce que daan gis euh, ci biir rab bi da daan dégg ay faits divers lépp li nga xam ne day xew li nit ñi di yeneen ak yeneen mœurs yeeg yooyu yëpp dañ ko daan tracé Euh, noonu lay euh, demee bon léegi yéen da ngeen gis que ni léegi tendance la wala yeneen ak euh, yeneen wala. oui rab bi moom comme noonu. Hmm. comme li ma la wax noonu rek nit bu nekk li nga bay fii ngay am. Hmm. man dama gëm ni rab kalaasante mayu ma du man nag du ma ko def quoi. Hmm. parce que ku nekk si yoon doo ku nekk si yoon te ko fan nga jëm doon yoon bi laa jaar wala yoon bi. donc du man du ko def. mais nekkagul loo xam ne mu ngi sama xel quoi nekk fii classante ay saagante affaire yooyu noonu. Hmm. man nekkuma si loolu quoi maa ngi visé leneen nekk si leneen quoi hmm. di job naa si ok mais euh, comme ni mu ko waxee woon sànq tamit euh, dinaa leen teewul tamit dinaa leen kii ngeen xaw mbëkkante euh, tuuti. Euh, léegi noonu lay demee ok ça se passe sur la meilleure de bande fréquence 93.5 nga FM actuellement il fait 15 h 45 minutes donc 15 euh, minutes d' animation moo ñu dese euh, léegi pour ñu joxe côté show ah, ñi nga xam ne sànq ñu ngi déglu couleur urbaine ñu ànd que Teuf Connection léegi Adja da nga may jox kii bi instrumental bi nga yokk seen micro yi Adja yeah yeah ah yeah ah el soo ngay am foofu wala foofu yeah yeah foo jaar mu am ñu lànk mais du teg fi hip hop bi def si tànk ndaxte mënoo ko sànk dañu dundul MC dañu dundul benn MC yeah pour force doy na merci fu ñu MC woo ñu dem si gaaw si xim ni faga taga man sa dibeer du sàndaga gem bi ñoo koy santare doon donga bu mat sëriñ dañu wax mu njariñ indi mooy sama njariñ tegg diil yar ak teggin di tegu si bit bi ak teggin son bu ak mbindam di rab ba dugg taata gin bul ma jox sa loxo bu man rek ngay bañ gis Rudolf Rosenthal zu landen. Yeah, yo. niggas, yeah, check, check, microphone bi nigga nekkal sa nopp yow ma jox la rab bu tàng nigga kalaama kocc la ñuy firi nigga dama bëgg fils nga gel sa nopp nigga xëccal écouteur la toog da xaar ma faal kenn da duma tër freestyle de tech nigga maa ngi nii de jàkkaarloog de benn bideelu de suma on the rhyme baa ngi nii booy fit nigga dooma soofal bandi dëgg boy, the tag the freestyle nigga maa ngi gaay FM bandi dëgg booy kocc ko booy bande FM boy, 93 point 5 FM nigga bandi dëgg du rap de cristal di teg néega maa sa jox ma boy déglu application bi dal na ko dal li may rap mooy tem aja aja na ko daal yow aha li may rab mooy tem gaa yaa ngi teg mais ma teree tem ni nga ñu bàyyi suñu yoon rek jubal beneen yoon faar bu gën a nice gën di jubal di tem ñun duñu teggi tànk xam nañ fi ñu bëgg a dem xam nañ fi ñu bëgg a suñu rab gaal seen hip nekk si leneen Sénégal war a avancer ñu bàyyi saagante nday xuloo xas gaal seen nañ ko gën a pousse mu jëm a gën si mu gën a jëm si kanam bro waa ye ye Yo, freestyle en project Microphone, de nigga Body hustler, dugu zit je tall, F and the thugger boy, nigga Doko tall, knock, nigga Ze rapper nena dat vertakken, denk je five gore Want de digger dikke dugu zit een rap Nigga, mono takken, jammer, no vies the rhyme Rhymes, de tag, follow, bij tag, die gun the car, nigga Want de dugger, digger, tanka, filmko digger, dugger, yaga, yaga tina, ben, verloor bij rhymes De tag, jammer, la bandy, gus Want the thugger follow, follow, follow boy, maak het je chico Real rap, dat nigga, okay. place okay non lay euh, non lay ok non lay demee ñu teewul ñu jël auditeur boobu mi nga xam ne mi ngi ci ligne bi allo. allo. allo na nga def. na nga def. si loo ne. waaw mi ngi nii mi ngi lay mi ngi lay dégg kan nga soxla woon si ñoom ñaar. ah Elzo laa soxla woon. ok mi ngi lay mi ngi lay dégg. oui maa lay dégg waay mi ngi lay dégg. Elzo man nag Fatou. oui maa lay dégg waay. na nga def. maa fi. émission bi moom neex na ñoo ngi koy merci beaucoup merci beaucoup. <laughs> yàlla yàlla yokk xéwal yi merci beaucoup amin amin soxna mën nañoo xam fan nga doon wootee. ah Bar Diagne dëkk ñu Elto laa wootee. Ah, ok mais moom comme par exemple euh, est-ce que am nay fans foofu bon nan lay nan lay dundee foofu wala. waaw am na fi fans moom ñëpp ngi taar euh, rajo bi nii di déglu ñun ñëpp ñoo ngi ay tantaam ay papaam ay magam ay rakkam ñun ñëpp. Hmm. mais est-ce que euh, est-ce que hmm, est-ce que tamit yéen ngi koy euh, taxaw foofu comme par exemple euh, ci côté musique bi ba xam est-ce que ànd ngeen ci musique bi muy def wala. ah ànd nañ ci dañu ne ñoo koy ñaanal rek. Hmm. yàlla defal ko ci li mu bëgg. Hmm. waaw ak bëgg ñu jàppale ko nag ba mën a dem. ok noonu lay noonu lay demee yow ñu lay jaajëfal bu baax ah. waaw kay ok man la tante Elzo nuyu ma ko bu baax. Elzo loo loo koy wax moom. <laughs> allo. oui comme noonu rek comme ni ko saa waxee rek. nga nuyul ma ñëpp. ok noonu lay ak waa Barjaal bi yëpp. Mm. maa leen nuyu foofu maa leen nuyu waa Barjaal sama waa dëkk lañ. Mm. aussi di nuyu sama di nuyu aussi Ngagne damay jàppale kenn la dëkk di nuyu Baara Ndiaye monsieur Baara Ndiaye bu koy mm. jaaja di nuyu ñëpp way gox boobu ok non lay demee ba tey euh, ci couleur urbaine ok parce que bu ne couleur urbaine euh, ñëpp ko mooma ñëpp ñi nga ne sam ñi ñi ngi euh, déglu sur la meilleure des bandes fréquence 93 ok ba dañuy continuer sunu show ok aja aja yokkal mu dem yeah uh ah, -huh. Oh, oh, ok dafa war a tàng meen yee acca monsieur bandi togg si yaa ngi may jàkkaarloog de benn homme sow waan baa ngi nii fis dëgg doo fi am dara bandi dëgg boy du ma la may dara néega da bëgg jàmm noo jërul ñaan fair play bandi dëgg boy door la kubi tak bandi dëgg boy maa fi teg teg néega da laaj avance bandi di ko delloo bandi dëgg boy fis dëgg yow di ko delloo allo waaw yaa ngi yaa ngi yaa ngi en direct si 93.5 Ngaye FM allo. man la Borka Thiam. Euh, foo fooy woote. Bar Diallo dëkku Mtouf. ah ok waaw mi ngi lay mi ngi lay dégg. mën nga mën nga wax maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. mi ngi lay dégg mën nga wax moom. naa def. maa ngi sant maa sant yàlla bu baax. ñu ngi lay ñaanal rek yokk ba yokk ko. amin amin amin ñu jàpp may may ñaan borom rajo bi nag mu jàppale la. amin amin boo bëgg a nga yegg amin amin papa ñëpp ñu ngi lay ñaanal waa dëkk bi. amin amin amin ay njóowa sekk ay gàmmu ju fa ñëpp a ngi nii toog bëgg a woote mënuñu laa jot. amin amin wax nga dëgg waay. ñëpp nag bëgg nañ laa woo. wax nga dëgg wax nga dëgg. ñoo lay ñaanal rek yokk ba yokk mais ah, ah, ah. mais moom dafa noppi de dafa noppi te gem bi laaju loolu de instant maa ngi ko booleeg euh, sama waa ji instant bii nii mi ngi koy mbëkk rek de. ah dina wax nag. <laughs> waaw ok noonu lay demee yow ñu lay jaajëfal bu baax ah ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, ci woote bi. Euh, issant bi issant bi instant bi euh, mi ngi lay dégg boo ko doon conseillé comme par exemple si yoon bu mu ne lan nga koy wax. man la 30 ans ma di ko conseillé rek mu. Hmm. góorgóorlu bu baax. Hmm. jàpp ci liggéeyam yàlla mën naa def yëpp dina dina yokk daal ba yokk ko ñu ngi koy ñaan. moo gën a roo nag ma get nii ah i Idji mooy mooy filmer nii ah maa ngi jàkkaarloog DJ Teuf connexion man ah. di bëgg sama gaay di saw dat An ah, MC bokoy xol beuti comme ku ñang be bro bi dafa ragal aha lo ak man man ak yow si maag rek ha ah, do laal dara be tak tak tak tak defal dank rek mo ma dab makoy def comme dab ni nga xess bandi deug lay def comme bak ande bi dafa hat mais do ma tey le may tek dafa tang wagn bu si dal de musuma komp ñe ma gëna jégué ñoma gëna bañ tout temps bu ma xeyé da got mek may sakal yoon bi mo wara jaar man dama jaar ñaanu wajur ma té bëra fi ma jaar ku fa jaar di nga lang yeah foo jaar mu am ñu lank mais du teñu tek fi tank hip hop bi def sen tank tey te mëno ko sank ah dañu dundul ben MC pour fo ci mercy merci fu ñu MC woo ñu dem si gaaw ci xim faga daga marsa di béer du ga gem bi ñokay santare don dong bu mat sëriñ lu wax mu doli ndariñ lima indi moy sama ndariñ tegg diil yar ak teggin di teggu ci bit bi ak teggin so bu nek ak mitam di rap ba dugg taada gin bul ma jox sa loxo bu fekke man rek ngay bañ gis dugal fop rocc lamiñ an sa bata dem bata coste dañuy soxla nil sero sera defet defet rafet sax la gaay di xaar ci ñun taal bu yàlla taal dee ko xam bu bul ci ndox cees la ñu ñun ni nga kenn tee ah yeah yeah my niggas yeah yeah my niggas self te sa texte yi maa ngi gis mu tegal ma da benn bétu killa killa raam baa ngi nii da tay ma killa killa léegi leer na freestyle teg na impro maa ngi gis mu sol na benn star boy raam si yaa ngi nii dama départ star boy maa ngi nii di jàkkaarloog da benn baafu raam si la ni di la ko ëf real rap la dëgg fis ñi ngi teg du rap boy ni nga maa ngi jàkkaarloog da benn kopp raam si la da faaw ñu rocc teen bi génne nigga bépp rap la ñuy def di freestyle di impro nigga waxal sa boy bi kañ lay wax yeah maa nigga su la leeral ram ngay déglu xam nga ñun ñooy bomb dañu dëkkee techno nice solu si di teg ko bàyyi bàyyi ne ko mu yam aha teg classe ñun xam nañ kan mooy moom aha ragal la tabel la boo ko xoolee comme si di boo kooba Wally Seck lay dund ñun dund ñu loolu gëmuñu yóbbu ñu ci jamonoy pakoti maam ñu gën a dund bés bi follow saasel ma teg leneen right ñu dem si kaw man yow encore nigga Yup, I can saw niggas yo aka sa néga bu dëgër bi lañu soxla soo mënul demal toog rab di foo ci nga tollo amuñu de temps bu ma xamoon lii laa fi fekk de du ñëw góor te ma teg lay raam si de xam nga góor yow la ñu dina la jaay doole góor wan la mala la man góor man di dëgg fii stade teg def doom ñoom a ngem njukki tali njoox pekkees maa fay për boy rab di freestyle teg kin pi koona ñëpp ñoo ma xam sniper gang la dalal jamu gor maa visé ci bët ngay bat bat yi bandi dëgg la fees dañuy suqi say laaf mënoo fi naaw nega dañuy firi boy jàppal nga dem nega real rap lañ lay jox ma negus yeah uh-huh. yeah li may ray man deyal sa gat aha uh-huh. gars yi lay diggu xam nañ ma kat xam nañ yow la kan xam nañ fi nga dëgg xam ki nga doon meen bu ñu sonal dëjal sa gat aha uh-huh. ubbi tànk man dama ko xam comme ni sama dama ko xam comme ni gelam téléphone dama ko xam ni tànku gelam ragaluma lolou gëna tek lu ciow coow ci jambi jam dem ragaluma lolou même bro yeah yaa rap di Yangi rap the gok, freestyle impro, boy be rap the gok. No, bandit dug tag boy fist, yo mono boy. Dama jangi war rap, suma gene jela sama contact. Ma jangal la boy ni rap rabé ndax contact. Ñun da dañ ko boy ci dini ba jene ni. Bandit dug freestyle de impro. maa ngi nii di takk njëlu bay karim bandi dëgg boy fis ni nga li may def ay karim real rap la dëgg boy maa ngi sol de adidas real rap la dëgg boy marque Puma bandi dëgg la faa Mal, mal, you back girl. Yeah, I can salt up in the flow. Rhyme till you that way flow, flow. Yeah. Yeah, aha, mun la talib señ la fal soma xolé xamni duma koy Uh-huh. Mama moy sera fal aha kon mérité na xana doon soblaaru sera Uh-huh. bay faali fuñu ñu tege waar ñun duñu taw ñu dañ koy tej fi bo ngon aha bu émission bi jeex nañ ko tek ben par ben ñu gën di timis may gën di gis aha bu la nexé pour la instant nga wax mais flow bi mako yoré men yow la may gën di buux di gën di dem ni nga tapen nga ragal suñu xol suñu bët man lañuy gëna feel bro yamal tek sa gat tek sa tati si pan bi mu siy kole si taxi si bi office si du boy duñ la ragaluñu ben yoon man ak yow fils do dem tëjal sa gat koy mala xol ci bëgg ngay daw di tëba ma ko jàll booy fis tapet amul fii ci man ama taalibe bamba ni yegg si noo faal sant kaay nga joxe siyaar ni yegg si rap freestyle di dégg impro maa ngi nii de takk ñaali alliance bandi dëgg faal takkal ma alliance ma sànni pik ngay fori rey naa sa MC bu yàgg takkal ko palaag rip man dama rap dugg sa gale kirim sa mama wàcce sama kap dugg sa rapport jëngal maani léegi dama sës tegal ma bidi ma teg ci loodul aji firi looda booy bi mer na moytul mu guusu raam si fukkeen bi egsi na sukk na raam na joxe na fukk waaye ñu nekk king yee ok nga perre wax jël yëpp boole suul la ci sa benn paax lem la du jar ngay dee dama lay gas suul la meen wékk xar sa biir politique politique yi si nekk sànni ko meen aha sa waa dëkk ñoo la gën a xam est du man lañ gën a bëgg meen soo paree di jël sama contact gën a jàng si man rap meen aha kan mooy ragal kan mooy tox di dem aha man dama waxu la ko xam ne suy rab day maan di na game bi aha tux ba yéeg di jë taf ki nga dalal xamoo ko meen aha est-ce du maa tax mu ji nii meen ok ok euh, noonu lay demee that's a real hip hop that's a real hip hop ça se passe sur la meilleure bande fréquence 93 point noonu lay demee li ñu jagaloon si waxtu jeex na tàkk jeex na tàkk ok yaa ngi doon am euh, MC Xës ak Elzo comme ni nga koy waxee tamit c'est normal tamit comme nouveau talent yi ñu dagg leen ñu xamante ci plateau bi that's real hip hop ok famille la avant tout ok léegi li ñu jegloon si waxtu dafa jeex tàkk ok ñu bàyyi leen ngeen tàggatoo ñi nga xam ni ñu ngi déglu euh, ngay FM ak euh, couleur urbaine. waaw waaw di sant sama gaay bu baax a baax di sant Mourou Fall ak Iba hmm. xam nga sama grand yi ñoom taayiwuñ ci benn yoon jàpp si bu baax a baax hmm. waaw di sant sama booy waa gàng mafia bi trois punu yi di siyaare mafia sniper gang bi hmm. di siyaare sama gaay yi ñoom ñëpp tout bàyyiwuma kenn waaw su ma limee damay juum di siyaare Iba mu daw di siyaare ñoom Waly Maadu ñoom ñëpp gaay yi daal taayiwuñ di siyaare waa Kayar mm. waaw ñoo doon woote léegi ñoom waaw Cheikh Fall gay uh, ak ñoom Sidi Bara mm. siyaare ñëpp bàyyuma kenn suma ma limee damay jum ak waa Touba di mm. leen ziaré parce que dem ba tey gis nga sama isat yi nim mu demee quoi c'est ça ma limé damay jum elage yeah way maa ngi koy maa maa ngi bégg sama waa dëkk aussi di leen ziar aussi di leen wax xam nga rek seen doom moo ngi nii quoi pour ngeen ñaanal ko aussi di leen si jàmm comme ni ma ko waxee léegi rek di tagu ngañ jàllo baara njaay aussi